soyons d'accord sur lan mooy immunité ba pare. waay moom mooy balaa ñu euh, ñu lay kii. Mhm. ñu euh, observer un certain nombre de procédures. waay te loolu mooy immunité. Mhm. balaa ñu lay poursuivre. waay mais est-ce que dañoo poursuivre Farba ko. encore voilà. ci beneen enquête lañ nekk. Mhm. contre euh, Jérôme am na loo xamante ne njort nañ ne bu demee bërëb sangam mën nañoo édifier ci lii ñuy seet. est-ce que dégg nga li ma la wax bu baax donc kon la question de l'immunité mhm. ne se pose pas parce que ce n'est pas Farba Ngom qui est poursuivi nee naa la léegi mën nañ la perquisitionner sans que rien ne puisse être reproché à au maître des lieux donc kon rien n'est reproché à Farba Ngom dans cette affaire. mais du am mandat. tey jii par exemple nit mën na ñëw euh, dugg sa kër. dugal fa lu ko neex génn na lii fii lañ ko fekk. loolu laa lay wax ma ne. waay déjà yoon maye na <laughs> officier de police judiciaire. wala juge d'instruction yoon may na leen ñu perquisitionner sans l'autorisation sans le consentement des maîtres euh, du maître des lieux bu dee dañoo nekk dans le cadre d'une enquête de flagrant délit OPJ mën na dugg def euh, perquisition am sans autorisation euh, consentement wu euh, maître des lieux mm-hmm. bu ñu nekkee euh, dans le cadre d'une procédure ci ay yenn infraction yi mm-hmm. même l'heure de perquisition sax kenn dootu ko faaleeti yaa ngi comprendre li ma lay expliquer mm-hmm. alors donc kon ci euh, type d'infraction bi mm-hmm. ci type de procédure bi parce que procédure de flagrant délit mm-hmm. ak procédure d'enquête préliminaire yooyu yëpp bokkul may mën na mën na nekk ñu def la perquisition sans euh, recevoir ce consentement d'accord donc tout ce qui est fait sur ce point est légal mais moom de bokkut ak bokkut ak yow xalaat moom euh, Farba Ngom nee na amuñu droit dem këram tëjee ko lañ. c'est son droit le plus absolu. Euh, on est en démocratie. dafa jàpp ne aussi dañ ko bëgg a comploter. dugal fa ay preuves génne ko. lu ko neex jaxase ko. lu ko neex mën na xalaatee. c'est son droit le plus absolu mais man li ma la jox c'est c'est avis. d'accord ce pas la perception de Farba Ngom ni de maître Moussa Diop mais man sama avis laa jox. li hmm. ma wax nag cohérent na wala cohérent wul. nee naa la boo demee dans les dispositions du code de procédure pénale nga ñëw ci article cinquante nga wàcc ci suuf ba yegg 68 ba wàcc di nga xam ne perquisition mais mën nga ko def sans pour autant euh, recevoir le consentement de des maîtres du lieu d'accord euh, l'ex-président euh, Macky Sall moom itam daal dinay ñaxtu nee na dañu persécuter famem ñu fi bàyyi euh, xañ ko privilège yi mu amoon yëpp sa famille politique wala sa famille biologique politique politique. waay kan lañ ci persécuté. ah loolu la wax de ku ci mel ni euh, peut-être euh, convocation yi Manar Sall liñ ko tere ñu génn Sénégal euh, convocation bu Lat Diop garde à vue bi ak ñi nga xam ne aussi na nañ leen. moom moom moom ci boppam dañ ko waroon def noonu. Macky Sall waay pour un souci de moom ci boppam. loolu muy wax noonu ne ce n'est pas loolu du xam nga ko yow. Ah, tu gères 12 ans. moom de loolu la ñu ne la toogal ci réew mi ñu saytu. xam nga loolu du tooñ loolu du persécuté mais moom ci boppam il devrait faire l'objet de ça moom ci boppam ngoram war koon may mu génn réew mi. Macky Sall waaw. mais yéen ñii euh, nguur gi moo ko jox moo ko jox avion ah. xaw ma ko génn dem euh, waa mais moom ci boppam. bu mhm. buñ ko doon diiri sax da doon wax non damay toog ba ñu def reddition des comptes yëpp ma soog ko dem. jàppoo moom mu ñëwaat ak appel bi mu woote keroog ak partem bi. na ñëw. jàpp nga mu ñëwaat. na ñëw na ñëw xalaat nga loolu. dañoo ah bu ñëwee day wax dëgg yàlla mu gën sax gëw ko nag moom wax dëgg yàlla gëw ma ko amul kenn ku ñu fi persécuté amul te daa malheureusement dans le cadre de ces procédures là chaque ku génn dina la ne way politique moo tax ñu kii ma politique ñu lenn kenn da nga gérer 12 ans foog nga taxaw rendre compte nag ci li nga seere nag. d'accord ci ci loolu est-ce que tey jii euh, yan procédure lañ mën a jaar pour topp koo xam ne nekkoon na njiitam réew. bon c'est c'est pas facile parce que un euh, dafa am immunité j'ai l'habitude de dire que ni immunité bokkul ak impunité dafa am privilège de juridiction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions mais dafa am aussi infraction boo ko mën a toppee muy haute trahison qui est un fourre-tout ça n'a pas fait l'objet d'une définition loolu jàpp naa ne ci réforme yi ñëw parce que ci assises de justice yi man en tout cas def naa proposition à ce que le président soit euh, euh justiciable d'accord alors donc haute trahison moom mooy lan. waat nga nga ne dinga nga respecter. et faire respecter loi yi ci réew mi. décision de justice ñëw na Macky Sall bañ ko appliquer. muy ban gis nga ko fi tanu Macky Sall jug na utiliser justice sénégalaise dal ci kaw opposition gis nga ko Macky Sall jóg na ay procédure taxaw mu ne moo ci teg kuddam gis nga ko. gis nga Macky Sall des organes de contrôle ne ko bul signer nangam ci euh, décret d'approbation mmh. mu def ko mmh. alors si on devrait énumérer les autres trahisons de Macky fii la ñuy fanaan parce que loolu yëpp autre trahison laa ko jàppee mmh. waat naa ne duma ma def lii ñëw def ko waat naa ne dinañ respecter et faire respecter les lois yi ci réew mi et les institutions constitutionnelles institutions constitutionnelles loi yi ci réew mi lépp Macky Sall salvage na ko dem yoonam il a trahi son serment depuis très longtemps alors léegi nag ça ne veut pas dire que ni président mënuñ ko juger mm-hmm. c'est Macky Sall lui-même qui était euh, chef d'orchestre du jugement de Hissène Habré oui. qu'il fut président de la République non oui. les chambres africaines extraordinaires. mais mais est-ce ñaari dossiers yi bokk na. wax ma la bokk na de euh, xam nga lan lañ bokk. Mhm. Hissène Habré président la woon moom président. parce que on parle de sa qualité de président. Mhm. waxuma la bokkul bokkul. Mhm. waxuma la benn la. donc sa qualité de président actuellement on où on moom au moment on parle le président Aziz en Mauritanie mi ngi prison. oui. Euh, Nicolas Sarkozy Chirac. wuy nañ euh, yoon seen dëkk. pourquoi euh, président moom il il devrait jouir d'une impunité totale. Mm-hmm. maanaam boo jiitee réew mi daal lu la neex defal. massacré ba heure bu la neex kenn du la mës a àtte loolu fu mu loolu fa la xel sax nanguwul loolu xel nanguwul loolu logique nanguwul loolu. toll nga ci benn station boo xamante ne lu la neex def. Mm-hmm. loolu ku koy wax sax war nga xoolaat sa bopp mënta nekk de te mën nañ koo juger. d'accord. alors euh, Pape Moussa saw xam naa léegi ñu ci euh, ñu ngi ci cëppaak ndaw ki émission bi ndax xam naa ni euh, am na yeneen yitte yoo xam ni dina la dab mais tey jii naka ngay jàngatee candidature yi ni mu candidature Abdou Karim Xurum Xaq ak Pape Abdoulaye Touré. oui euh, ce sont des personnalités que je respecte. Mmh. personnellement Pape Abdoulaye Touré xam naa ko depuis l'université un jeune vraiment entreprenant mais ñeme engagement aussi ah. Euh, te démarche am ak euh, engagement am en tout cas c'est nullement camouflé. Mm-hmm. bokk na ci ñi nga xamante ne surtout dans le cadre de son engagement politique. Mm-hmm. li mu dund ci Sénégal ci mettit néew nañu la ko mën a wax. Mm-hmm. torture yi tout le monde l'a vue mais euh, am na dayoog am na. tous les lépp luy sañ mhm. ci sénégalais. Mhm. pour ñëw ne lii dama koo soxla ci réew mi. Mhm. am na ci sañ-sañ teddu. donc ci loolu la joué te jàpp naa ne il a des qualités pour ça. Abdou Karim Gueye xurum xaq aussi je le connais pour avoir euh, cheminé avec lui lu yàgg ci biir nitu dëgg. lenn moom mën naa ko ko seedeel. mooy ne il est sans état d'âme quand il s'agit de l'intérêt supérieur du Sénégal te leer na ma ne bu doon cëpp assemblée moom. li may njëkk a xam mooy sama xel dal na ne loi proposition de loi buy euh, criminaliser homosexualité dina dugg. loolu moom lu ma wér la. dana wax ci lépp loo xamante ne saawaay dafa nekk di nager ak contre-courant de nos valeurs. Abdou Karim Gueye lu mu xat xat xat lu mu jàpp jàpp jàpp bu noddu jógee mu jul julli. Mhm. loolu mën naa ko seedeel te xam naa ne am na le patriotisme nécessaire mën nga ko reprocher lu bëri impulsif il est nanga et cetera c'est vrai nit kese la. waay il est assez haut et c'est mm-hmm. mais quand xam na actuellement li Sénégal soxla au niveau parlementaire. Mm-hmm. bu ma sañoon moom wax dëgg yàlla gis Abdou Karim Gueye ci biir euh, assemblée nationale parce que xam naa ne nag moom euh, maanaam du taalibe kenn. ci wàllum politique. du ci taalibe kenn. wax na ko dem booy. gëm naa loolu. te ku jàpp mën na jum de mais bu jàppee ne yoon bii du loolu day taxaw jàkkaarloog yow ak ku munti doon donc ces genre de profil yu ni mel effectivement pour man euh, dina dina dina baax parce que euh, suñuy euh, dirigeants yi moom. foog foog ñu maanaam mu am ñoo xamante ne moom da leen di teg choc carrément. maanaam booy def mu xaw a kii da nga xalaat yenn c'est pourquoi. Mm-hmm. am une société civile forte aussi am solo. et que euh, assemblée aussi ñu am ci ñoo xamante ne euh, dañuy dañuy dañuy tenir tête dina dina dina baax. d'accord mais yow euh, jaaxle woo ci ku jug rek affiche def sa affiche. man ne candidat non mais <laughs> finalement est-ce que candidat yi sax duñu ëpp électeurs yi quoi. ah oui parce que damay gis. mais département de Mbacké. waay cinq députés cent quarante sept candidats. waay c'est